wala yahabil Moustapha xayra chiyam mbokk yi ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew ginnaaw biñ santee suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bu tedd bi sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal alxalifatul am cheikh Mouhamadul Mountakha Mbàkke yàlla na ko fi yàlla bàyyi te wéral ko may ko gudd fan ak dali naalam yëpp ci barke cheikhul xaddim noonu la ñuy nuyoo kilifa diine yi ci réew mi yëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal xéewal mbokk yi ñu imaat ñëwaat ak yéen seen émission bi nga xam ne moo di yaru ak yare suñu mbokkum daara Serigne Mbacké Sourang waroon ko taxawee tey yàlla dogal mu am ngànt ñu wuutu ko fi seen mbokk seen xarit al oustaz Omar Sylla ñu war cee dalal waa kuréelu yaatal mbindum alquranul karim ki leen fi toogal nag tey féete ci wàllu communication bi muy max Serigne Mahmoudane jeng laataa ñuy dugg ci waxtaan wi ak moom xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoo sëñ Mahmoudane ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah Seydina Omar maa ngi lay ziare di eh, également sunu mbokki internet yi nga xam ne ñooy ñooy topp émission bii di yaru ak yare eh, comme ni nga ko waxee ñu baaxoo see ànd ak sëñ Makhtar ak sëñ Mbacke Souran eh, di leen nuyu mboole mboole ñoom ñëpp fu mën a nekk ci Sénégal walla ci bitim réew. di la nuyu yow tamit di nuyu sëñ Maxtaar eh, di ñaan liggéey bi nga xam ne mu ngeen nekk di def muy liggéey bu sunu borom gërëm su ko gërëmee itam teg ko fu yàq agul bi barakat rasulillah jërëjëf sëñ Amar. jërëjëf sëñ Mahmoudan ci nuyoo yu am solo yooyu di nuyu itam waa yaatal mbindum alquran comité scientifique ba commun communication d' ak mboolem kilifa ya fa nekk yëpp rek ci njiital sëriñ Xaadim Ndiaye imam waaye di ñaanal alaaji sëriñ sekk ak sëriñ Fàllu ci ni sëriñ daam Touré mi nga xam ne liggéey bii seen loxo la nekk fépp ñu bëgg mu àgg yàlla na ko fa yàlla àggale ndamal alxuraan lañ la yàlla waxoon rek téere baa ngi noonu ñu ko laaj te mooy téere bi nga xam ne mooy ngën ji téere gën téere bu dul moom muy alxuraanul karim sëñ dan ren yaatal mbindum alxuraan ngeen indi ci ay mbir yu bees ñu tàmbalee ko ca formation ba ca Touba tàggat xale yi ci wàllu bind loolu boo ñu ci doon dikkaatal lan nga ñu wax. waaw xanaa avant tout rek ma associé samay nuyoo ci loolu nga def euh, tàmbale ko ci mboolem mi nga xam ne ñooy njiitu c 3 si ak kuréelu yaatal mbirum alxuraan li ko dalee si PDG bi El Hadj Serigne Seck euh, jaar ci commission yëpp jaar ci coordonnateur bi ak président comité bi Baye Fallou Seck ak euh, sëñ Dame Touré ak sëñ Xaadim Ndiaye mi nga xam ne moo jiite commission scientifique bi ak Serigne Moussa bi nga xam ne mooy président bu jury bi. ak mbooleem ñi nga xam ne rek ñu ngi si biir comité bi ak commission bu mën a bokk comme ni nga ko waxee euh, yaakaar naa ne am na loo xam ne activité la bu bees loo xam ne jàll na ni nga ko waxee sànq muy formation boo xam ne dañ doon gën a renforcer capacité ñi nga xam ne ñooy ñëw di bokk ci euh, ci concours bi. mu nekkoon formation boo xam ne la commission scientifique bu con bu bu comité Yaatal Mbindum Alxuraan dañ doon ko def sa Touba yaakaar naa ñiy topp ñi faral di topp itam chaîne bi. gis nan liggéey bu am am solo boobu nga xam ne def nañ ko fa ak résultat yi fa bàyyeekoo nga xam ne ñoom individuellement bi ñu leen jëlee kenn ku ne si ñoom euh, wax na njariñ lu ko formation boobu jëriñ muy ab innovation boo xam ne indi nañ ko si liggéeyu édition ren bi incha allah euh, ñu war nag dëgg malaat liggéey bi comme dooroon nañ ko ci loolu ñu dëgg malaat ko jëm ci li nga xam ne mooy euh, appel à la candidature nga xam ne ñi nga xam ne ñoo war pour mën a déposer seen ay dépôt comme ñun ko baaxoo di def ngir nu mën leen a jël boole leen ci euh, ñi ni tànn pour ñu mën a def concours bu ren bi incha allah sëñ Omar. jërëjëf euh, sëriñ Mahmoudane ci leeral yu am solo yooyu jëm ci concours bi ak ni muy doxee mais di gërëmaat aussi compagnie El Hadj Sëriñ Seck ci participation significative bi muy def jëmale ko ci daara jëmale ko ci alquranul karim muy tàggat ñi nga xam ne dañuy bokk ci mbind mi. formation ku a doon rawatina ndax domaine bu complexe la ngir sew-sew yi ci nekk yoo xam ne yu yu mat di ràññe la di ko xam ngeen jàpp di ci jàppalanteeg dong yi nga xam ne yàlla dogal na dañoo bëgg a bokk ci concours bi di gërëm borom xam-xam ya fa nekkoon yëpp ñoom sëriñ Mbàkke Sourang sëriñ Sam Mbàkke bu Daaru Salaam sëriñ Cheikhouna Mbàkke sëriñ Moustapha Diop mi nga tudd léegi di président comité jury bi sëñ Saliou Sall sëñ Saliou Silla borom xam-xam yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ci liggéey bu rafet boobu nga xam ne euh, Abdoul Khoudous Silla ca Daarul Mooti nga xam ne vidéo yi ñuy def nii sax moo koy coordonné di ci def liggéey bu am am solo euh, loolu am na solo sëñ Mahmoudane euh, dafa mel ne ren am na coppiku gu bees gu jëm ci concours bi waaw coppiku yooyu coppiku yooyu yan coppiku la waaw xam nga ko wax concours bi wax alquran te yéen yéen ma ko gën a xam yéen jàngkat yi alquran moom suñu borom ba naan ñoo ko wàccee te noo koy sàmm inaa naxnu nazzalna dikra wa inaa lahu la xaafisuun kam waxoon euh, dañuy jàpp ne ak nu mën a mel mooy wàcc di ko di ko defee noonu xaj na dana am ñu koy jaarale ñun ne danoo nekk di bay di sant yàlla nag ndax sàmm googu mu ne moom moo koy def bu la bu la jagleelee yow nga bokk sa ñam yi jox ab ab yar di la sàmm loo la sant la euh, ba waral nag coppite yi nga xam ne moom lañ def ren mooy ginnaaw bi ñu suñu borom ci loolu munu munu jagleel ñu ne nag euh, danañ fexe ba candidat itam li nga xam ne moom leen daan moom leen daan jox ñu jëm koo yokk mi prix yi euh, daanañ ko def nag ci édition yi jàll daanañ def édition bu ñëw ba ca topp nu gën a yokk prix yi ren nag nu yokkaat prix yi comme ni ko baaxoo di def xam ne képp koo xam ne bokk na ci lauréat yi nga xam ne ñooy jiitu muy ñett ñooñu nga xam ne ñooy jiitu ci jiitu incha allah ci innovation yi ñu def ren dana am 7 millions 500 7 millions 500 la ñuy jox premier bi deuxième bi am 7 millions troisième bi dana am 6 millions 500 mais ak yokkute goo xam ne jëwriñ ji Alaaji Sëriñ na ko ci neexal yi nga xam ne moom lay neexal ñi nga xam ne ñooy ahlul quran ñi nga xam ne itam ñooy. bindkat yi muy lu ñu boole ñoom lu jafe mokkal gi ba pare di ko bind waaw ndax mokkal gi rek alxuraan ak jagleel la waaye itam toog di bind alxuraan te doo ko xool di beneen jagleel la mu xam ne loolu ab coono la boo xam ne euh, ñu mat a ñu mat a encouragé lan ñu mat a jàppale lan ci liggéey boobu moo tax mu ne daal nan jéem a yokk li leen doon jox loolu tamit ñu ko si sant bu baax a baax waaye itam xam ne ak ak jagleel la ko ko suñu borom jagleel ñuy sant rek Mhm. Euh, daray daray cat bañ ko jiitu ci loolu suñu borom nangul ko liggéey boobu daraja alxuraan mi nga xam ne moom lay moom lay moom lay jëfal muy liggéey bu tàmbali nag xam mhm. naa ngir gàttal rek euh, bu ko defee jërëjëf sëñ Mahmoudan xam naa suñu laaj bu mujj mooy mbirum mbindu mi mbindu mi moom fan la toll ak ku ci bëgg a bokk fan lay jaar waaw mu mel ne nag mbind mi mhm. mbind mi nag kiyagun ko commencé door agun carrément euh, dépôt yi nga xam ne nit ñi mën na noo jàpp ne sax danoo door dépôt yi waaye dafa am lu ko daan jiitu mooy ñu fexe ba képp fépp fu waaye nekk ci bitim réew wala ci biir réew mi hmm. mën a jëg ne mi ngi bëgg a commencé dépôt yi loolu moo nekkoon euh, bande annonce bi nga xam ne moom lañ daan gis muy jàll xam ne daanan toog benn un mois boo xam ne dañuy yëgle hmm. léegi yëgle boobu nag lan lan nam ma def le 16 incha allah le 16 bii nu benn ci weeru août bii nu nekk nii su ma juumtee le premier août kon le 16 hmm. août incha allah lañuy commencé def communiqué bi Euh, ngir képp koo xam ne bëgg na see bokk. yaakaar naa àllarba lay waaw xam naa <laughs> àllarba lay nga xam ne danañ wax itam. <laughs> ban fànn la ñuy kii mooy ban fànn la ñuy déposé li ñuy bind. mooy mm. nga jël benn xët bind mm. si lu toll ak fukki bind ak ñaar wala fukki bind ak ñett euh, bind sa tur ak sa adresse sa numéro téléphone. waaye déposé ko nag ci point de point c 3 bu la gën a jege Sénégal waaye wala boo fekkee mënoo ko. nga fexe ba rabita bi wala fédération bi koo fa xam. Mhm. te jàpp ne soo ko joxee dana liggéey dana agsi si liggéey bi nga mën ko koo jox. Mhm. loolu daal mooy li nga xam ne am na itam beneen plateforme. boo xam mhm. ne euh, daanañ fa jaarale kii. mooy euh, comme euh, plateforme boobu nga xam ne dañ koo dañ koo dañ koo mettre sur place nga xam ne ku bëgg a bind. ku bëgg bind itam te nekk si internet ba koo jaaral si internet bi mën nga faa jaar mooy da ngay def 3W boo defee 3W nga def. candidat point yaatal mbind candidat point yaatal mbind xam naa réalisa réalisateur bi moom lay jàllale noonu si si si kii bi waaw mooy 3W lay doon. Mhm. point mhm. candidat mhm. point yaatal mbind moom moom la réalisateur bi sëñ Moustapha di jàllale noonu si si si écran bi waaye itam képp koo xam ne itam bëgg nga ci beneen leeral ak foo mën a tool bokk si Sénégal mën nga woote itam si numéro téléphone yooyu di jàll si écran bi muy 76. 751 43 42. wala 70 736 36 36. mu mel ni itam daan gis si wàll euh, sud bi. Mhm. mooy ay fu mel ni ay maatam ak euh, Rosso gi. ak ah, Ziguinchor ak yooyu ñoom tamit seen bokk da daan am solo. Mhm. ñoom tamit. ku ci bëgg déposé rek mën nga dem bu dugg C3S bi bi nekk euh, Ourossogui bi nekkee mhm. côté boobu moo la gën a jege wala bi nekk Ziguinchor mhm. wala bi nekk itam Tamba wala nga jokkoo ak Serigne euh, Ousmane Dia mhm. ci numéro boobu di jàll ci écran yi hmm. sëñ Ousmane Dia moom di ko jàmbaare ci liggéey bi nekk euh, Ranérou ci numéro boobu di jàll di 77 784 15 46 sëñ Ousmane Dia loolu daal xanaa euh, sëñ Omar hmm. mooy li nga xam ne matoon naa jàllale xaj na dëgg la ci mbirum lu jëm ci liggéey bi di hmm. yaatal minam alxuraan dëgg la namoon ko partagé ak yéen macha allah jërëjëf sëriñ Mahmoudane ñu ngi lay sant di la gërëm bokk ci comité scientifique bi nga xam ne mooy accompagner comité scientifique communication comité bi nga xam ne moo yor wàllu communication ci kuréel gi di jàmbaar ci liggéey bi di leen ñaanal rek dan ni ñu ko tàmbalee yàlla nañu ko àggaleeg alhamdulilahi rabil alamin te yàlla def ci ndam comme na mu defee woon ndam cay jiitu woon waaye di ñaanalaat alaaji sëriñ Seck ak mbooleem ñi koy jàppale ci liggéeyu alquran bi di liggéeyu diine di liggéeyu yàlla alquran a ngi noonu mbokk yi wa innahu la dikrun laka wa li xawmika wa sawfa tusaluun bu sëñ Maxtaar asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullah Cheikh Omar Silla maa ngi leen bu baax di la siyaare di nuyu bokk yi teewlu di ñu topp fuñ mën a nekk ci àdduna ci biir réew mi ak bitim réew mi tàmbalee nuyoo bi nag kii saaxibul fadila cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahu llahu wa raa wa waffaqahu wa tawalla di ko siyaare bu baax di siyaare njabootug njabootug cheikhul xadim gépp di nuyu kilifay réew mi it ci yeneen atti diine yi ak fuñ mën a nekk ci taif yëpp bàyyiwuñ kenn tàmbali leen yóbbu siyaare bi ci alaaji sëriñ Seck njiital c 3 di ki teg alaaji sëriñ Fallou Seck sëriñ Dame Touré di nuyu sëñ Moustapha Sarr suñ technicien bi waaye di nuyu waa c 3 si seen bànqaas yi fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di siyaare bu baax seen mbokk seen xarit Makhtar Kébem Cheikh Salif Mbacké jërëjëf sëriñ Makhtar fàttewuñ sa xarit sëriñ Abdou Samad Mbacké moom sëriñ Chouaïbou di ko bëgg lu baax lool te di ko di ko wax yàlla te fay ko te te wéral ko sagul lislaam la ku bëgg lu baax la te mën ko dox Cheikh Abdou Samad ñu leen lay nuyu bu baax Mbàkke di nuyu mbooleem eh, waa alxuraanul karim ak ñi nga xam ne duñu waa alxuraan képp koo xam ne yor nga mbooloo di leen diriger di leen digal ñuy def di leen tere ñuy bàyyi émission bi sa émission la ndax ki koy waxtaanee tax ñu di ko wax dafay dugg foo xam ne yow mi yor njaboot ci sa kër sax émission bi boo koy déglu ñaari da lay jëriñ Serigne Makhtar xaqul jaar xaqul jaar mooy lan mooy aqi dëkkandoo muy lu sew lool loo xam ne jullit bu nekk war na cee bàyyi xel ndax yàlla ki gën ci nit ñi la ci njëkk a bàyyi la ci njëkk a loo xel muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maxtaar tey aqul jaar muy aqi dëkkandoo laaj bi ñu la ci njëkk laaj mooy yan aq la nit amal dëkkandoom yow mi dëkk ak moom ak moom mi dëkk ak yow jërëjëf Cheikh ci seen émission bii di yaru ak yare di nuyu sëriñ Mbacke Sourang di kontaan lool ci nuyu boobu nga nuyu Cheikh Abdou Samad Mbacke ma di ko fayal am nuyoo fii ma toog euh, baatu jaar mooy ko dendal mooy ko dëkkal mooy ko bokkal liggéey mooy ko bokkal nekk fi barab ku dend ak yow rek sa dëkkandoor la bu arab daan wax jaar bu njëkk mu ngi koy dug juble woon ki nga xam ne da nga koy gis ay maintes fois ci bis bi kooku moo doon jaar bi dëkk yi magee nag mën ngaa am sa dëkkandoo joo xam ne mënatoo koo gis ndax kee nga dëkk Tëngéej kee nga dëkk Wokaam waaye terewul nag ay dëkkandoor lañ su boobaa nag ki nga xam ne da ngeen a soree moom saa yu ngeen eh, gisee ak xam ci la tàmbalee am ci yow sa ak tàmbalee am ci moom ki ngay gis bis bu setit bis bu set ak xam day gën a feddaliku ci yow sa ak di gën a feddaliku ci moom ki nga bokkal ab liggéeyukaay bis bu set àqam day gën a feddali ko ci yow sa àq di gën a feddali ko ci moom su boobaa nag baatub aljaar xaq yu bari la am ci kemt laayal nit ki fi gëmam toll ndax yonent bi saas daf ne am na dëkkandoo joo xam ne da ngeen a bokk ay bokki bokki bokk am dëkkandoo joo xam ne a bokk rek ak bokk ak dëkkandoo joo xam seenu mbokk ak bokk rek la waaye du ay bokk ki nga xam ne yàlla daa dogal mu gëm nga gëm ngeen bokk diine àq ngoog bi ki des ngeen bokk aw askan àq ngoog bi des ngeen bokk dëkk àq ngoog kooku ñetti àq la am ci yow àq ji jëkk mooy en tant que ab jullit la ne yow li mbokkum jullit di séq ak mbokkum jullitam séq ngeen ko yéen ñaar te mooy lan lu yaatoo yaatu la dana ñëw ci détail bi ba tey nag ngeen tourné waat bokkaat ci wàllu deret mooy seeni maam seeni baay da ngeen a bokk kooku ba tey itam donte du jullit moom day amaat beneen àq boo xam ne dox na sa digganteek moom donte benn àq bee rot na day am àqi deret moo tax kon ñi nga xam ne dañoo dëkk ak ñoom ci biir réew mi te du ñu ay jullit am nañ ci ñun àqi dëkkandoo ci biir réew mi mooy ak citoyenneté muy almuwatana bi ki des nag benn àq rek la mooy bokk leen diine bokk leen deret waaye yàlla daa dogal seen kër dend yéen a bokk dëkk Wakaam yéen a bokk dëkk Bargny yéen a bokk dëkk Touba yéen a bokk dëkk Tiwaawoon kon dëkk gi ngeen dëkk foofu képp moo leen boole waaye bokku leen ci diine bokku leen ci maam ak yooyu yëpp nag danañ ko lim ci kanam bokk na ca aq yi sa dëkkandoor yonent bi salaa sallam nee woon na bi ci gën a suufee ak bi ci gën a kawe aq yi ci gën a suufee mooy nga bañ koo lor te bu la loree nga jéggal ko nga bañ koo tooñ te bu la tooñee nga jéggal ko nga bañ koo tooñ am solo la bu la tooñee nga jéggal ko waaw bul ko tooñ yow mm-hmm. fegal ko sa lor mm-hmm. te bu la tooñee yanul loram boobu mooy bi ci gën a tuuti allahu akbar te mooy bi ci gën a rëy itam nag buñ ko xoolee ci jamono léegi ci mm-hmm. ndax ay dëkkandoo saa yuñ jiitlee jëm police mbaa ñu jëm gendarmerie wala ñuy def tribunal rek am na luñ bàyyi waaye bu ko bàyyi buñ ko bàyyi wutoon rek lee du am ndax bu kenn ki nangoo yone euh, lori moroomam ki ñuy pelente bu fekkonte ne fegul na moroomam ay loram dee su ko pelente kon li Yonent bi sallam ne nga fegul ko sa lor te bu la loree nga yenu ko loolu mooy tey dem tribunal ah, sañ sëñ Omar ndax yow danga koy fexe ba ba la bu la bu la bu tooñee nga jégal ko kon yenu nga loram doo ko porter plainte foofu am na solo mooy dënn wu ah, ah, dañ ne fadlu sadri siatu sadri kii war a taxaw ci kanamu mbooloo mooy boroom xol bu yaatu fadlu sadri siatu sadri araba ko waxoon bu yàgg fadlu sadri siatu sadri nag mhm. bu fekkee nit ki daa fegal boppam mhm. daa fegal moroomam lorom bu ko tooñee du ko porte plainte kee tam bu fekkoon daa fegal moroomam lorom du ko tooñ ba mu di ko plainte kon ñaar yooyu nag pourtant moo ci gën a néew bi ci gën a rëy nag mooy waxuma la nga di ko fegul sa waaye nag ngay rafetal ak di ko teral nee na boobu mooy ak ji gën a kawe ci àq yi bu ñu waxee bee danga naan boobu doy na waaye beneen bi bu dikkee nga xam ne moom moo gën a rëy mooy nga di ko teral tey rafetal jëm ci moom bee da ngeen a fegante woon rek kenn ko dafa doxaloon baaraas su diggante ak sama morom bii na dañoo bëgg njariñ yi di partager kon dëkkandoo lu rëy lu rëy rëy la moo tax yonent bi saa sallam waxoon sun borom sax moo ne waabudullah jiital naa ibaada moo ko moom wala tushriku bihi shay'an ragal loon nañu shirk ndax day sippi jëf wayit waal day ne ixsaanan sun ñaari way jur ñoom ñoo gën a sës ci noonu ndax ñoom lañ war a rafetal jëm ci ñoom lu ñu war a rafetal jëm ci ñoom noqta point ki nga xam ne moo njëkk a rafetal jëm ci yow ci jamono yoo xam ne mënoo dara lottu nga di liir bu la tegoon fee négligé la say bët du baax say loxo du jub say tànk du taxaw boo demee ba am doole moom mu néewle ko mu dem ba moom mu màggat ay bëtam baaxatul ay tànkam baaxatul ay loxoom baaxatul ndax waroo fay naar ba xorom sa rek bidabt foofu la tax ñu ne ihsaan ilal walidayni bor bu ñuy fay la kon moo tax mu mujjee ko ca laay ja wal kaazimiina al danañ ci ñëw barakallahu fiik barakallahu fiik léegi nag wa bil walidayni ihsaanan ihsaan ilal walidayni lañ koo jiital wa bi dhil qurbee ki nga xam ne dangeen ngeen a bokk na nga rafetal jëm ci moom ihsaan ga la répété waat def ko baa bu ñu jar ak vii gi nga xam ne saaxibu lay taxawee kon ba mu noppee ci ñaari wayjur mm-hmm. ki nga dendal ngeen am xaraaba damawiya xaraaba mm-hmm. axawiya mm-hmm. muy ngeen am mbokkuk deret am mbokkuk lépp danañ ci ñëw dil xurba jooju xaraaba damawiya la kon wal jaari dil qurba wal jaaril junubee tax kenn du ko firee ma nga ca kanamu aaya ba allahu akbar allahu akbar <laughs> macha allah macha allah ok wa bi dil qurba mhm. mooy sa mbokk mi mooy sa mbokk mi rek mhm. sa mbokk deret mi mhm. wal yataama mu nga dugal jirim ak ku néew doole balaa ñëw ci dëkkandoo parce que suñu borom buy tartib dara da koy tartib ci ay ay masaalix intérêt bu waxul sa yaay nga ne ko ana saa yaay ak saa mun la wax naa ko ba noppi ihsaan laa ci santaane nga ne ko man kat si la laa sant wala kebe mu ne wax naa ko wa bidil qurba xanaa doy na bu ne wala yataamaa nag moom même pour kii personne la nee na foo gisati ab jirim rek yërëmal wal masaakiini ku dikk ne la kër ga dara nekku fa mhm. tegal dara ci loxoom mbaa nga teg mbaa nga tegtal ko ko mën a teg dara ci loxoom xoolal ni ni mu indee macha allah wal jaari dil qurba nag mhm. mu door a ñëw nag ne dëkkandoo ji nga xam ne day dëkk ba noppi ngeen bokkaat ci dereet wal jaaril bi ak dëkkandoo ji nga xam ne këra leen boole dëkk bee leen boole mais bokku leen ci dereet dëgg la wa saaxibi bil jën bi mooy ki nga àndal ciw yoon ngeen xamante fa na ngeen seq jàmm wa bi ni sabili nag ak ku ñëw ci dëkk ba nag di étranger waaw mooy étranger rek ibnu sabil dañ koy firi étranger rek kon àqi dëkkandoo ji ba ci ki fi dëkkul am na àq ci yow. am na àq ci su boobaa nag dañ lay laaj Cheikh Omar. lu desaat ci àdduna ku des kuñ tuddul ci àq. kan la boo teewloo. ginnaaw sax nee na étranger bi teral ko. lu des ban nit a desaat kuñ tuddul. lépp mat na. mbooleem li la wër. ma ngoog environnement bi dugal na leen ci. moo tax na nag. Mhm. wa maa malakat aymaanukum ak ñi ngi ci prison yi boo ko tekkee leneen. boo nee wa maa malakat ko mooy koo xam ne dem na ba caabi féete ko ginnaaw rek boo ko tekkee noonu da ngay jàll ndeysaan waaye bu ko tëree ay jaam ak yooyu mm-hmm. amatul mm-hmm. waaye ndekete kiñ tëyee ci kaso bi te nga mën a dox yow ba mu génn ndàmpaay liñ koy laaj nga mën koo yëkkati joxe ko ihsaan la allahu akbar ma tax it ko raqaba mm-hmm. mooy libéré pression libéré prisonnier. mooy et xuraq boo ko bëggee firi ñett te démb. du dem du dem. waaw du dem de. waaw dëgg la mooy ku moomatul boppam. Hmm. ku caabi féete ginnaaw kuñ téye benn place malakat aymaanukum la. nga xam ne librul. waaw macha allah. léegi nag mu ne suñu borom nee na ñooñu ñëpp dañu war a wàcce kon prison yi. Hmm. ñi nga xam dañoo nekk ci biir prison hmm. bi. prison yi di ay prisonniers dañu war a rafetal jëm ci ñoom. inna allah la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur kuy tiitaru ci kaw nit ñi. ak di mm-hmm. bajantu xam nga kuy tiitaru ko mooy kan. Mm-hmm. ku xeeb ak mbokkam. Mm-hmm. xeeb mbokkum jullitam. xeeb ibnu sabil. muy étranger bi. xeeb ka ca prison ba. xeeb kim dëkkal. kooku mooy faxuur mooy moxtaal. moo tax mu jël aay bi mu jëlee ko ne kii man lii mooy ku minut nii. waaye képp koo xam ne boole nga melokaani di ndamoo ko tiitaru doo mën a dimbali kenn. waaye sëñ Maxtaar li nga wax solo si yéeme na. ndax li tax suñu boroom jël baatu xubbu. Ah. toftal ko ci ñaar yi. Ah, laa yu laa yuhibbu kulla muxtaalin. faxuur nga xam ne amul istisna. amul exception. Mm, mm, mm, moo lay wan ne kon jëf ji ñaaw na. baatu muxtaal ak faxuur ñaari sifa la. benn bu ci ber woon doy. dëgg la te benn bokk ceeg moroom mm-hmm. day mel ne muxtaal day wan boppam nit ñi. faxuur faxuur daa bëgg a kawe nit ñi. <laughs> allah yàpp moo tax yonent bi saa sallam ne woon man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri mhm. falaa yu'zi falaa jaarahu allahu akbar la dana la minimum boo bëggee bokk ci group bi liste bi nga xam ne dañoo gëm yàlla bu lor sa dëkkandoo su ko defee nag boo rafetee lay fal yukrim dayfahu nag mhm. mooy yow da ngaa bëgg a dem ci martaba thaniya thanawiya bi muy deuxième étape bi étape bi fal yukrim dayfahu mhm. falaa yu'zi jaarahu xam ne fee da koo digal ko tere. fee ko tere. Oh. ma kon ku gëm yàlla. Mm-hmm. gëm ne danga nga teew ci kanamu yàlla. Mm-hmm. te loolu nag daa jël imaan lënkale ko ak dëkk ak ak ak la ak dëkkandoo man kaana yuminu billahi wal yawmil axir ak ni imaan rëyee ak lim rëyee nga taqale ko ak dëkkandoo mu ne falaa yu'di jaarahu ndeke kon idaayatul jaar mm-hmm. day dàqonte ak imaan ay ay ay naqi daani lañ naqi waaw dëgg la waaw mu ne kon ku gëm yàlla gëm bis ne da fa taxaw mm. mu ne ah mu sa dëkkandoo beneen bi mu ne laa yuminu hmm. abdun xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi abdun la wax foofu jaam am na phénomène laa yuminu ahadukum nag hmm. nee na nit ki bala mën a gëm hmm. buñ ne balaa mën a gëm nag daqul gëm mutlaqan waaye kamaalul imaan a tax mu ne laa yuminu xam ne nit du am mën ngëm gu mat foofa mukk waaye nag mën naa am dara ci ngëm waaye laa yuminu ju yent bi saa sallam di mooy bala ngaa bokk ca gaaña boo doonee waaja dangay ngay fexe ba dabi gaaña waaye boo dee ne waaja ba noppi toog fi nga toog nag gaa ya raw la mu ne nag laa yuminu ji mooy bala ngaa am matuk gëm mhm. da ngay bëggal sa mbokkum jullit li nga bëggal sa bopp su al yatrax nafsa sa jullit mooy bañal mooy bëggal boppam ab safaan dëgg la moo tax yonent bi saatam ne du ci sori mhm. bu laaj li ngay bëggal jullit bi mooy li nga bëggal sa bopp kenn ku ne xam nga la nga bëggal sa bopp bëggal ko sa morom ko sa morom dëgg la moo xam ne mooy matal mooy matal jullit bi waaw kay sëñ Maxtaar doguma la foofu mhm. waaye fam xadis bu ñëw sama xel léegi mm. yonent bi salaay salaam bi mu toogee saxaaba yi ne leen ndax xam ngeen ki perte waaw ah. saxaaba yi ne ko ah ki perte day ki ñu ci xamoon mooy ki jënd marchandise dem jaay mm-hmm. bu jaayee ba ñëw mm-hmm. lam jaay lamb wala mm-hmm. amu ci bénéfice dañuy jàpp ne perte na mu ne leen déedéet ki perte du kooku ki perte mooy ki ñëw yowmal xiyaam indaale ay julli indaale ay woor indaale ay aj màkka indaale ay azaka waaye loroon na dëkkandoom jëloon na àqi jàmbur leb na nit fayu ko toñ na nit nangam nangam su boobaa dañuy jël yu baaxam jox ko ñam ko yore loon jox ko ña mu amee loon àq boobu jël seeni i jox ko kon sëñ Maxtaar foofu ban sew-sew lañ ci mën a jànge yaatu na ndax alxaasiroona jooju ñuy wax hmm. al muflisuuna iflaas lañ ko tudde ci arab mooy ku amoon dara ba yàgg ba yàgg mu ñàkk dara hmm. te la ko xañ dara daraa ko ko xañ mooy hmm. muflis mooy alxaasir ki doon julli ne ñëpp daan woor ne ñëpp daan aj màkka ne ñëpp daan génnee asaka na ñëpp kooku dafa nekkoon ci sha'air ta'abudiya mooy liñ sant ñëpp doon na ko def ni ko ñëpp doon defee mhm. waaye nag muamalaat bi baynahu wa bayna al axarina la mhm. perte maa jëflante gi mu war a jëflante digganteem moom mhm. ak ñeneen ñi ca la juumee da di def defe ne bu digganteem ak boromam baaxee lépp dana baax ndeke de sa diggante ak sa borom dafa war a baax ak sa diggante ak sa morom moo tax ñu ne am na ci loo ne chaira taabudiya la mhm. ci yàlla mhm. julli woor aj màkk natt asaka kooku sa diggante sa borom la waaye nag muamalaat bil mithl bil ihsaan mhm. bil afu mooy wal kaw min xayr jooju nga waxoon yooyu mooy tax nit ki doon am dara yowmal xiyaam moomal ko boppam kii nag daa am yee ba noppi nag nekk ca der nit ña di lekk oh. alxuraan niroo la ne teg sa mbokkum jullit cib deram lu ñaaw lekk rek doy na yàpp waaye medd médd la ko nirooleel allahu akbar ayuxibu ahadukum an yakula laxma axihi mayitan fa karihtumuh mooy wala tajassasu wala yaxta baadukum baadan dëgg la wattandiku leen di yëddu wattandiku leen di jëw ndeket nit ki boo koy jëw yaa ngi dagg ci aw yaramam di lekk sëñ Maxtaar dogguma la li nga mhm. wax nii dafa dafa am solo mhm. foog ñu taxaw ci mhm. sëriñ Tuubaa dana ñett a ngi nañ bàyyi xel. Mhm. bu dee ñetti jikko yi ngi ñoom. Mhm. nañ ko dindi ñu ñaanee yàlla du ko nangu. Mhm. ban ban la. mu ne euh, euh, mu kas mu kassirul xiibati. waaw aakilul xaraami. waaw ah. wa zul xilli wal xasadi aydan lil anaami. ok waral. axlaaq cheytaaniya la. jikkoy cheytaan la. moo dajaloo ci moom. moo am ñetti jikko daa am. jenn jikko ji jikkoy yàlla la. jaam bu ca dem yàlla ne la ci bitti. jenn jikko ji jikkoy cheytaane la. jaam bu ca dem yàlla ne la ci bitti. jeneen jikko ji jikkoy mala la jaam bu ca dem yàlla suufeel la ba nga bokk ca way suufee jenn jikko rek lañ bëgg muy jikkoy nit allahu akbar iñaan soxor jëw jikkoy seytaane la rëy teral sa bopp jikkoy yàlla la topp sa bànneex lu la sa bakkan déggal nga si def ko jikkoy mala la dëgg la yooyu nag bu àndee nag mm. seytaane loolu sawar da ko bëgg loolu sawar da koy alawte ko mi ngi mel ne nit ku diwoo pétrole wala mu sotti ko essence taxaw ci wetu sébbu <laughs> waaw da koy woode par force mhm. Mhm. ok jërëjëf. Mhm. nag. kon yonent bi saa sa waxaat na beneen xadis. ci xaqul jaar. mooy dane ittaqil maxaarima. takun abudan naasi. boo wattandikoo li yàlla araamal. kenn gënatu laa jaamu yàlla. ndax ifal wala tafal rek mooy diine defal ak bul def. te bul def moo gën a foor defal. ndax boo deful rek def nga waxin lu olof la bu sun borom nee defal lii bul def lii mhm. soo fexee ba defoo lam la lam la teree mhm. pour nga delluwaat ci lim la doon def loo day yomb ndax ñaari taxawukaay la nit ñaari pied la am ñaari tànk da ngay taxaw yëpp càmmoñ mbaa nga taxaw yëpp ndeyjoor naaw ci jaww ji loolu am moo tax ñu ne nag boo bàyyee tere yàlla yi mhm. ba mat yaa ngi ci ndigalal yàlla yi amul leen amul diggante boobu amul feneen fu nit mën a teg tànkam ak wér moo tax yéen bi saa nag na nga wattandi ko yi soo ko defee da ngay nekk abudan naas yaay gën a jaamu ci nit ñi ndax lan ab jaam lii musibaam mooy def ay tere te bu deful ay tere rek c'est sûr que ne mi ngi ci jëfi ndigal yi allahu akbar loolu am solo la bi ki des warda bi ma qasama allah takun agna naasi loolu yàlla jox jàpp ca na la doy doylu soo ko defee mhm. soxlaatuloo kenn kenn kenn gënu laa woomal ca kaw suuf dëgg la sëñ Maxtaar leeral yi am na solo waaye am na jëmm joo xam ne dafay suñu laytaale lay waxtaan te mënee su la wax tem bii ba génn ci te duñ la laaj dara ci moom nan la dundee woon ak dëkkandoo waaw ko Cheikh Saliou Mbacké Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu ma àggal bi ci mujj wa ahsin ila jaarika mhm. takun mu'minan rafetalal jëmale ci sa dëkkandoo ndekke kon rafetal jëm ci jëkkandoo jooju mu ne mooy bi ci gën a kawee mhm. fegul sa dëkkandoo say lor mooy bi ci gën a suufe mhm. wa ahsin ila jaarika na nga rafetal jëm ci sa dëkkandoo takun mu'minan nga xam ne imaan la la mooy natiija ba waaw mooy mooy mooy natiija bi résultat bi mooy boo rafetalee jëm ci sa dëkkandoo jullit dëggantaan nga mm-hmm. takkun muminan takkun muminan macha allah léegi nag lii ñu wax yépp mm-hmm. Cheikh Saalihu Mbacke radiallahu anhu radiallahu taala anhu moom la doon dund sax far ci bu nekkee ca daara ja ndeysaan ak bu nekkee ca Touba. Mm-hmm. ak bu nekkee ca tukki ba bu ci nekk danaa la ci andil benn ndax émission bi dafa xam jërëjëf muy ñu lay taalee bi mu nekkee Touba ku ne xam na ne li muy xat-xat ak li muy bari bari ay responsabilité mhm. doy na la ñu ne la nit am na ay responsabilité yirif na fukki junni nit ak ñaar te ñëpp la xam ñëpp a ko xam ñëpp lay jëflanteel ñëpp ay jëflanteeg moom kooku moom bu nee fant wala ñu ne ko occupé wala ñu ne saturé kon sëñ Saliou woo ko defoon. dëgg terewul nag fa daan dem dafa daan dem fa mu mënta dem daf daan yeble ngir jokk ak bokk. ndeysaan waa kër sëñ Touba ñëpp kenn ku ne sëñ Saliou Mbacke daan ñëw ci yow ngay ñëw ci moom. ndeysaan ñi nga xam ne ñoo fi nekkaloon sëñ Touba ci ay ay taalibe itam kenn ku nekk Cheikh Saliou Mbacke daan ñëw fi yow mbaa ngay ñëw fi moom. Mhm. fu mu ba mu demee ba mënatu a dem fenn itam dafa amoon ab kuréel boo xam ne wala ay ñennat nit yi boppam. Mhm. yoo xam ne ñoom la yebal. ñu koy siyaaree li ñooñee. Hmm. kon loolu mooy diggante biir tuubaa ci gàttal. ci ay mbokki boppam ci mbokki boppam. Mhm. ànd na ma ak moom 83. 83 ñu ñëw Thiès jóge fa dem got got nag mi ngi wetu mi ngi ci wetu nootoo ñiy déglu. nootoo guy jamaa nootoo jabaas. nootoo jabaas ah bokkul nootoo guy jamaa. nootoo jabaas wax ba mu fa jógee. Mhm. mu ñëw fu ñuy wax xabaan. Mhm. xabaan mi ngi ci wetu campement Ngexoox. Mhm. taset. jóge nañ foofu nag jëm Mbuur. sëñ Saalihu di jokku mbokk. kër goo xam ne bañ fa duggee noonu. ma nga ca peggu dëkk ba. benn néegu ñaxa fa nekk. gannaarug jaboot moo tojtal ca roon lal ga ànd àndandoon ne ci biir néeg ba fees ko dell sëriñ bi ñëw di siyaare kooku di ko jokk balaa jàll mbuur ba ñëwee fekkuñu ñu fa borom kër gi mu dem tool bi sëñ bi dugg ci néeg bi xadd bi ni mu wàcce noonu ci ci ci néeg bi da nga koy yërëm ni mu koy ronoo waaye dafa ñëw ba toog ci lal bi nga xam ne fel yeeg cuuj yeeg yépp a ngi ci biir mu toog fa ngir bëgg bu wàcc sëñ Saliou Mbacke ñëwoon na fi allahu akbar allahu te ku nekk xam na ne 83 bañ demee 90 91 la nekk xalifa général des mourides boo ko génnee ci mille 1915 kon borom magum juróom-ñaar fukki at doon def lool. allahu akbar kon loolu bokk na ci bokk na ci lam jokk. njàngale yu rëy ngi ci. ba ca des. Mhm. daf daan bëgg ñenn ñu nekk daan jokk ñennat ba ci donga yi ñu ko daan jox séeréer yi daf leen daan dajale ne lakkante leen séeréer. seen biir. ndax ngeen mën a wéttali konte kenn ku nekk bañ a fàttew làng dëgg la kon loolu jokk na gosam wallaahi mi ngi lay jokkloo sa gos te mooy li yonent bi def bi mu demee Makka bi mu demee Madina sallallahu alayhi wa sallam at axi dafa mbokkale diggante waa Makka ak Madina barakallahu fiik mhm. bu masaan daara ju masaan a am mhm. bu fa jëwrin nekkee jëwrin mhm. dongab gan ñëw fa yàlla dogal jëwrin jii ak dongab gan bi ñëw bokkoon kër gu guñ dëkk wala dëkk bu ñu dëkk sëñ bi da leen di boole waa daara ñii fanaan ak yendu ngir bëgg ñu wéttali konte te loolu Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba bi mu nekkee njaarim mhm. këru njaarim gi mhm. képp ku mës a jógee Saalum mhm. kër gi ubbi koo ci jumaay njaarim ji borom dëkkoon Saalum kooka mooy dalal waa Saalum kër goo xam ne yàlla daa dogal borom dëgg jóge woon Jolof këram ubbi koo ci kër sëñ Touba bu ku jóge Jolof dikkee foofa la lay dalal kazaalika Kajoor kazaalika yeneen allahu akbar nga xam ne falsafa bu yéeme la <laughs> sëriñ Saalix yàlla yàlla yokku leeram te nu ci barkeem waaye hmm. damay wax ne ku ñu waroon di jàngalewaat la pensée sëriñ Saalix rek hmm. c'est extraordinaire defar na askan defar na defar na dëkk defar na réew hmm. ngir li ci nekk ci ay leçon yu jullit mën a jëriñoo waxuma la rek kuy murit waaye kuy nit rek tey te te nite dunduk sëriñ Saliou mën nga cee jëriñoo lu bare bare bare bëri sëriñ Maxtaar ñi ngi lay sant di la gërëm waxtaan wi am na solo lool mhm. di ko tëjee rek xadis boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko mhm. ne Jibril daana ñëw ci moom di ko fàttali bu baax ak àq yi dox digganteem ak ay dëkkandoom mhm. ba mu jàpp ne bu fi jugee sax ñi koy wuutu dëkkandoo ci la bokk kon loolu day wane rek ne dëkkandoo am na àq yu am sa diggante ak moom même budul jullit même budul jullit moo xam dafa bokk ci beneen diine waaye am na àq yoo xam ne am na sa digganteek moom en tant que nit ak nit mbokk mhm. loolu nañ ci bàyyi xel mhm. sañ Maxtaar mhm. euh, li wolof naan li duuf ci nag bi xajul ci li thème bi am na solo yaatu laataa ñuy yëkkati jotaay bi yan kàddu ngay yëkkatee incha allah xanaa di sant bu baax bokk yëpp wolof Njaay def na dëkkandoo jàmm ca gën bis du ñàkk baatu bis du ñàkk boroom xam-xam yi wala olof yi dañ ne lu waaye am am doole dees na la jàppale yett yi danga ki soxla sa moroom donte milliardaire nga bu dend ak bu faqiir bis bu ab néew faatoo da ko ne kaay jàppale ba ma suul ko soo amee ab néeg booy teg néeg da ko ne kaay jàppale ma teg sama néeg bi. wallaahi wallaahi. jotee day jiitu joote. jotee. day jiitu joote. allahu akbar. waaye bàyyi ba joote ñëw nga naan ko man kat fan yëpp maa ngi la bëggoon a woo téléphone damaa xawoon a ñàkk jot déglu ko rek keroog mi sotti soxlaam dong lay wax allahu akbar waaye nag di ko woo téléphone ba loola jot nga wax ko boo ko wooyee mhm. loolu mooy jootee dafa jiitu jootee bàyyi ba jootee am nag nga ne wuy sama mhm. xaar ma ma seeti diw xaar ma woo diw loolu moo xew ci suñu jamono jiitu dara dëgg la kon nag wax naa tënk bi rek ak mhm. xataay waxtu yi maa ngi leen di nuyu baax di leen sant di nuyu sëñ Omar Sylla émission bi nga xam ne yaa ngi ci wuutu sëriñ Mbacke Sourang sëriñ di nuyu mbokk yi rek ñi nga xam ne ñu ngi koy toppatoo tam itteel leen lañ naan la duuf ca nag wa xajul ca cin la waaye nag la hmm. duuf ca nag wa kat dees na ko def ca cin la waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu <laughs> macha allah macha allah mbokk yi seen émission yaru ak yare ngi noonu ñu àndoon ceeg sëriñ maxtaar kebeem Cheikh Saliou Mbacke wuutu fi suñu xarit suñu doomu ndey sëriñ Mbacke Sourang borom daaray tey sirul asir ngànta tax ñëwul waaye émission bi moo ko waroon taxawe di ñaanal bu baax a baax a baax suñu technicien Serigne Moustapha Sarr di ñaanal Serigne Abdou Khoudous Silla ca Daarul Moxti waaye di gërëm boroom kër gi ak mboolem ñu koy jàppale ci liggéey bi muy alaaji Serigne Seck ak alaaji Fallou sekk ak Serigne daam Touré di ñaan yàlla defal leen jàmm c ca kaw ca kanam ci lu baax ci barke alquranul karim in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu